Euh, Cheikh Diop ma nuyuwaat la. ma fayaat la bu baax a baax sonn naa xewlu nga ba noppi wala. waaw <laughs> jot naa jot naa am lu ma lu ma ah, lu ma lu ma mos tuuti voilà. <laughs> ayca ñu dooree ko ak l'observateur ñu dooree ko ak l'observateur euh, soxna naata mm. ci lu doy waar li nga xam ne nag euh, daal dinay am kile itam doon rek euh, coppi màkkaanu ki nga xam ne nag moom moo di patronom ci anam boo xamante ni jaaduwul ba noppi itam di jaayloo boppam aw doomam boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook juróom-ñeenti at képp dong dikkaat na ba tey Euh, ci langue euh, politique bi làbbali wi nga xam ne nag daal nañ koy làbbali ñi nga xam ne ñoom ñoo féete euh, ci gouvernement bi mi ngi àddu ndax itam tànneef bi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal Macky Sall moom la def am déet moom njiit mu réew mi mu xëyee li nga xam ne moom moo di nataalam loxo dar gémmiñ jàppal ne diwaan bu Fatick lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay commune daal nañ koy ñàkk Matar Ba mi nga xam ne yóbbu nañ ko ca cour d'appel nu ni mel daal di waxee mbir mu woowee Malem Odar jàppale nag euh, pouvoir bi daal dina fay ñàkk commune bi ak itam li nga xam ne euh, moom moo di euh, département bi ñeent ci ay commune yu Kaffrine itam daal dinay rëcc li nga xam ne moom moo di Benno Bokk Yaakaar fii li nga xam ne itam moom moo di ci Ndakaaru lu ni mel doon na loo xamante ni daal nañ ko fi nemmeeku jàppal ne itam waa Benno Bokk Yaakaar ci ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki démb lu toll ci fanweer ak euh, ñaar euh, ci euh, ñeent fukki ak ñetti département yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal daal nañ ci àddu ñu dikkaat ba tey ak itam xët wiile nga xam ne moom la daal di euh, fësal nataalu ki nga xam ne euh, moom moo di Abdoulaye euh, Diouf Sarr moom Amadou Hott ak ki nga xam ne moom moo di Oumar Gueye am Diakhra Iyane Thiam Aminata Assom jaato yi nga xam ne nag daal nañuy ñàkk ci gox yi nga xam ne nag ñoom la jiite mu di ñi nga xam ne yor nañ ay ndombal tànk fii ci réew bu senegal te itam bëri foo xamante nii moom la ñu lajj coup d'état diwaan bu Burkina Faso lu ni mel itam mu ngi ci xët kaay ma ngi ñuy nettali itam mbir moomee ana nan rak daal di euh, tëree activist wile di Mor a Dia bi nga xam ne nag ñu ngi ko jàppee ci aéroport international euh, Blaise Diagne weneen ab congu mu ñeel itam mbirum euh, élection yi ba tey moom na ba Ndiaye bu gëm sa bopp jàppal ne Euh, ci yile euh, jamono daal nañ koy euh, xañ ngelaw lu féex ci la jamono ba tey naata nga jàppal ne neexul benn yoon ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo féete ci pouvoir bi ñu mu soxal waa Benno Bokk Yaakaar fa nga xam ne nag moom moo di après li nga xam ne moom moo di seen victoire Diop si euh, diwaan bu euh, Tiwaawan xam nga ne Yewwi Askan Wi tam daal dinay arraché li nga xam ne euh, moom moo di département bu Tiwaawan lu ni mel la rek daal di xëy fësal maire yi lee fu ci mel ni Tataguine Somone Bambey Kanel Kër ma Madiabel Kédougou mu ñuy wax ana nees lañ leen déjjatee leneen itam loo xamante nii daal dina koy fësal diwaan bu Tëngéej coalition présidentielle bi nag na xam ne noonee noonee la ñu ko làbbalee lu ni mel mu ngi ci euh, libération Bamba Fall diwaan bu Médina euh, daal di euh, rek jëlaat li nga xam ne moom moo di raw gàddu gi ci kanamu Cheikh Ba moom moomee li mu ko rawee nees tuut mu jege li nga xam ne nag moom moo di euh, junni euh, euh, voix ca diwaan bu Gambie mu soxal bët Saalum bu réew bu Sénégal congu li nga xam ne nag am na fa ba tax itam ñaari jàmbaar yu sénégalais ñu daal di leen di faat lu ni mel itam am na ñenn ci ay rebelle yoo xamante ni nag am nañ ci ay gaañu gaañu page 2 bu laas euh, daal na ci euh, euh, dikkaat benn Bokk Yaakaar yi nga xam ne nanguwuñu defet wi nga xam ne nag am na ci njongonte yi ñu jugee dibeer wi li nga xam ne nag moom la ñu weesu ndax itam jàpp nañ ne ci fukk ci ay région yoo xamante ni fii ci réew bi la nekk nag ñoom ñoo daal di daan lépp lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di élection yi mag ñuy wax itam anam wi nga xam ne moom la ñu gagné moom Cheikh Oumar aan diwaan bu euh, njum mu mel ne nag daal dina koy euh, ratissé euh, ba mu mat yeewi askan wi itam xëy na fësal li nga xam ne nag moom moo di seen nataal yeewi askan wi dénonce des tentatives de hold-up de sa victoire lu ni mel la rek daal di fësal xët bu njëkk wile di record itam daal dinay dikkaat ci gaynde yi xam nga ne ni ki tey daañu dañoo ak waa Cap Vert bu 16 euh, jotee maanaam ñeenti euh, waxtu moom moomee nag li ñu bëgg mu di euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde ñu daal di rek diir tey itam bu ñu diiree. ñu mm-hmm. bañ a lupp benn yoon source a dikkaat ba tey ci anam wi nga xam ne nag moom la ñu amalee jongante yi lu ni mel daal dina koy tas tasar ci li nga xam ne nag moom moo di page cinq jàpp 6 bu source a ki nga xam ne moom moo di professeur Moussa Diaw analyste politique la wax na ci anam bi nga xam ne euh, moom la waa Benno Bokk Yaakaar ñàkkee élection yi la mu xam ne mu di ndax du tànneef yi nga xam ne nag njiit bu réew bu euh, Sénégal euh, moom moom moo ko daal di des ñeneen itam ñoo xamante ni daal nañuy joxe seen ak kàddu lépp mi ngi ci source a Benno nekk ci guddi woo xamante ni bëccëg setagul mu mel ni nag ñoom ci seen bopp Benno dans le délire la ko rek daal di euh, dippe euh, tribune dikkaat ba tey ci euh, bukki wi nga xam ne nag moom moo mattoon ki fi nekkoon njiit bu réew moom président wàdd ku mooywul moom matt ki nga xam ne nag moom moo di président Macky Sall ci anam wi nga xam ne noonee la ñu amalee ci yile élection mburu ak soow li nga xam ne nag itam daal na koy xëy euh, fësal mu di euh, mburu ak soow dans le euh, comment ki nga xam ne moom moo di nataalub sa Seck diwaan bu Thiès jàppal ne fu ni mel daal na fay lajjee ba tax itam mu daal di xëy fësal nataalam Sud Quotidien dikkaat ba tey uh, ci anam wi nga xam ne nag uh, noonee la ñu uh, daane nguur gi tey itam ñoom ci seen bopp ñu daal di rek dummooyu mbir mu ni mel sunu làmb lañu koy jeexalee ca diwaan bu France la nekk moom Balla Gaye 2 ngi rek amali paj ginnaawam bi nga xam ne nag mu ngi doon mitti soxna naata foofee la ko rek daal di dem faje jàppal ne ñaari docteur ñu ngi koy topp ak itam benn kinésithérapeute boo xamante ni ñu ngi saytu wàllu wér yaramam bu baax a baax moom itam bu ñëwee ñu ngi koy xaar fa nga xam ne nag moom moo di euh, CNG mu soxal lépp lu ñeel euh, certificat médical bu euh, guérison noonee la rek daal di fësal naar Touré moom mi mooy nga xam ne nag mi ngi rek diir ki nga xam ne moom moo di adversaire am ku mooyul du ko may dara ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak ndaje ki nga xam ne moom moo di brise de mer itam ma ngay xupp wala bokk di joxoñ ki nga xam ne moom moo di Albouri la mu xamle moom itam du ko ko may dara ku mooywul dina ko yóbbu fa nga xam ne nag moom moo di euh, kawo naata lu ni mel bokk na ci li nga xam ne moom la xët yu njëkk yéen i kaay xëy fësal ginnaaw bi ñu ko càmbaree. merci beaucoup Cheikh Diop rendez-vous demain incha allah balaa ngaa wax. ñu garaawul dañ dinañ ci wax mooy euh, rëg-rëg guy gi. face to face bi waaw tey tey lay am ci TFM tey lay am voilà rëg-rëg Maawu Cissé Maawu Cissé moo ko tëgg. Maawu Cissé mais nag El Hadj Malick. Euh, Malick kañ laa koy dégg sa rajo barki démb maa Malick euh, ma euh, Maodo Cissé nag bu mu def ni alaaji Papa Dia mi nekk fële ca RFM ndax da daan tëgg rek lendemain bi mu raar dañ koy laaj sedduñu suñu wàllu mu raar pendant une semaine duñ ko gis donc Maodo boo tëggee <laughs> recette yi na ko indi fii ñu seddoo ah <laughs> du sedd kenn weekend yi lay ñëw samedi wala kay man moom ñu ngi lay xaar mu ngi noonu daal tey daal la jàkkaarloo bi en direct lay doon sur la TFM à partir de 21h30 guy gi mhm. ak rëg-rëg war a xas-xasloo mhm. mu nekk combat bu nga xam ne wax dëgg yàlla Sénégal Entertainment Group ñoom ñoo ko tëgg mhm. maawo jiite ko mu nekk suñu combat Cissé Ngari Ndiar meew ñu ngi lay xaar ñu feete waale qualification gaynde maaw ah, baax na maaw xam nañ fi koy jaar xam nañ fi ñu koy jaar merci beaucoup. waa waaw waaw dañuy ñëw feete ndamu Sénégal bi donc jàmm rek moo fi am incha allah incha merci beaucoup Cheikh Diop ba ba suba. incha allah euh, demain incha allah pour sama euh, dernier numéro de la semaine. <laughs> Cheikh ak a bëgg bër. <laughs> merci beaucoup Cheikh léegi <laughs> léegi léegi merci beaucoup Cheikh Diop léegi dañuy jàll ci document bi ñu leen doon wax sànq ak euh, kii di way jur bu góor bu Ismaïla Sarr.